ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilahi rabil alamin maa ngi lay fay. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ni nga ànd ak ñun ci li nga xam ne moo jëm ci invité matinal bi war waxtaane li nga xam ni moom moo jëm ci actualité bokk na ci eh, ni kiy démb confirmé bi nga xam ne confirmé nañ ko daan bi nga xam ne daanoon nañ ko Ousmane Sonko ci li jëm ci mbirum diffamation moom diggam ak Mame Mbaye Niang ah, déception ngeen mujj am finalement. mënuñu am déception li tax mënuñu am déception. defe naa waxoon naa ko ci plateau télévision yëpp mu leer nañ cour suprême bu confirmer la condamnation de six mois mm. Ousmane Sonko reste électeur maanaam mën na wote ba tey mën nañ ko fal loolu yàgg naa ko wax ndaxte boo xoolee il faut que ñu leeral sénégal yi parce que am na ñu bare ñu leen di jéem a nax ci loolu moo tax ma euh, bantoo alhamdulilahi rabbil alamin plus de six mois la article L vingt neuf wax plus de six mois mooy six mois un jour dafa leer bu ñu demee article euh, L trente dafa ñëw wax égal à six mois waaye la mu wax dafa viser ay délits yu nga xam ni délits yooyu dañ ko wax ca article L vingt neuf waaye L vingt neuf préciser wul benn yoon diffamation ma ni looloo taxoon ñu daw la ca dossier contumace ba tey nag ñu ñëw bëgg jaxase xelu nit ñi confirmation ne veut pas dire que dañuy éliminer Ousmane Sonko de Ousmane Sonko reste électeur et éligible. mooy seen mooy seen candidat amu leen beneen tànneef bu dul Ousmane Sonko. mais amuñu beneen tànneef on se focalise sur Ousmane Sonko mooy suñu candidat parce que ba léegi dañu gisul lu ko éliminé ci course bi xam nga bu ñu gisee lu ko éliminé ci course bi ñu wuti keneen waaye gisuñu lu ko éliminé ci course bi ba léegi mu ngi ci biir bi mais dut looy wax na ko définir na ko nañu bàyyi bu article ñëwee ñu jàng droit dëgg-dëgg préciser benn affaire article ba ca topp mu wax nga bëgg ni contraire ba la boo déggee contraire ba yaa déggul droit waaye boo déggee droit xam ni dara mënul wax ba pare contraire ba ñëw c'est que ñoom du ñu aller plus loin que la réflexion au fond wala ñu tay ka tayef bëgg la mu ci benn kii interpréter daal def la ñuy def Ousmane Sonko électeur éligible ba tey suspense bi moo fi nekk ñoom ci geneen wàll gi dañu ne Ousmane Sonko léegi suñ ko def ci liste bi euh, list électorale bi daanaka sax ni ki tey ca conseil constitutionnel ñu ngi fay di itam ki nga xam ni moo di mandataire ñu xool fan la wananti di mujjee ki gëtëm ndax am ngeen yaakaar njort bu rafet ci bu eggee dañ leen bàyyi ngeen def seen liggéey gi yëpp. bu ñu eggee dinañu confirmer ni Ousmane Sonko. jàll na parenage ndax parrainage député la war a dem bu ñu eggee le vingt di nga gis ñu affiché wane ni validé nañu candidature am te li tax mooy wax dëgg yàlla dafa yenuwul sax maanaa yow ma dénk la sama alal alal bi jëpp moom ko nga def ca loo ca warul def ma ni def nga ca loo ca warul def doo doo wote loolu xel sax dafa nanguwul est-ce que nit ñi ñu ngi réfléchir bu ñu dugal ci benn imbroglio politico judiciaire ba bëgg ni Ousmane Sonko dañ koy xañ loolu mënul nekk te lii ma leen wax dara du ci dañ ba ñu àgg ci am na ñu ne mbir mi dafa xaw a léger trop maanaam lu xaw a yomb la diffamation rek ñu daal di lay éliminer waaye itam dafa fekk ni am na ñu beneen wàll gi nee nañ euh, nit nag boo waxee dara dañ ciy indi ay preuve ma dafay fekk dénkuma la sama alal mën naa la fekk mën na danga sàcc xar mais waaw waaye ma dénk la sama alal j'ai le droit de te critiquer boo bañee ku la critiquer bul jël alalu jàmbur di ko téye ñoom ñaata étage la am ma ni lii dafa leer ci kanamu sénégalais yi maa ngi wax sénégalais yi ni leen Ousmane Sonko électeur la te il est éligible ba léegi amul benn avocat bu mën a wax wala benn juge bu mën a wax ba Ousmane Sonko n'est pas éligible bu ñu dee wax droit kese l dafa leer naañ plus de six mois la wax bu doon six mois vingt quatre heures du bokk waaye six plus de six mois mooy bu dee six mois kese la day bokk c'est clair net et précis loolu dafa leer bu fekkee dañu bëgg indi beneen article bu contenir boobu ñoom ñoo contenir seen bopp waaye article bi dafa leer nañ L29 nañ ko lire. ci geneen wàll gi lan moo war a nekk léegi taxawaayu coalition Sonko président. seen taxawaay mooy dem ci terrain bi liggéey fexe ba gën a convaincre Sénégalais yi parce que Sénégalais yi pare nañu naam waaye nañu gën a organiser wu parce que kat ñi ñu jàkkaar lool lu ne ils sont capables boo fi gisee ay doublon boo fi gisee yeneen defe naa di nga ci ñëw. Mhm. lu doy waar la lu nga xam ni loolu yëpp c'est orchestré pour foqati nguur gi te ñoom jeexal nañu. waa euh, junj nga ko sànq li jëm ci mbirum doublon yi daanaka candidat yi ku ci nekk ngay wéy di dem fa fële nga xam ne moo di ca conseil constitutionnel ngir ñu mën a saytu li nga xam ne moo jëm ci seen euh, parenage bokk na ci étape yi ni mel waaye seetlu bi mooy ñoom Déthié Fall amuñu problème ki nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Dièye amul problème waaye yéen tamit seen candidat ba ngeen ne dafa war a wuuti parrainage citoyen muy Bassirou Diomaye Faye am na ay lënc-lënc doublon yi nga xam ne itam moo ko xaw a sonal xam nga doublon yooyu seen normal bu fekkee da nekk ci euh, benn place bu nga xam ni soixantième place jëm kaw looloo tax Amadou Ba daw nanguwul dugg ca pare parrainage ba mu doon wuti mu dem laqatu ca élu ñun nag dañuy assumer suñu responsabilité doublon yooyu dañ ko doon xaar li ñu mënul comprendre mooy trente mille ñu nga xam ni dañ ni nekkul ci fichier électoral bi te ñooñu yore seen carte électeur booy li muy doon wax loolu yëpp volonté fokkati nguur gi la volonté euh, euh, fexe ba faagaagal sa morom la fichier électoral bi mënoon nañ ko ba nga xam ni numérisé ak application bu nga xam ni doublon du am ba pare yii yëpp di am du am ñoom ñoo ko tey. c'était prévisible kon bi topp toll mënoon nañu véritablement indi ay application mais Bakar Ndiaye wax na ko ci ficier la nekkoon mais lii yëpp tayef la. c'était prévisible kon. mais c'était xam nga mënuloo li gën a li gën a doy waar mooy mënuloo yow nga basé ci benn fichier bu nga xam ni yaa ngi wuti parrain te yow joxuñu la fichier bi loolu kay mën nañ ni diw nekku ci diw nekku ci loolu mooy problème bi mais stock boobu yëpp nañ ko garder xool ñooñu ndax ñu ngi ci fichier électoral parce que fichier électoral bi tôt ou tard dinañ ko alors léegi nag ñu xool ndax ñoo ñu ngi ci mais yooyu yëpp ay irrégularité waaye nag. Hmm. li ci neex mooy lenn. mooy lan ñoom dañu mënul am quinze pour cent. Hmm. sàccee dindi nitee def léeg-léeg quinze pour cent mënuñu ko am te ñun li ñu ci réjouir mooy fileeg ñaari weer. waaye waaye ñu abal ñu bu ko defee suñu réew dellu fa mu nekkoon lii kenn gisu ko ci Ablaye Wade kenn gisu ko ci Abdou Diouf kenn gisu ko kenn volonté manifeste nga singal yi nit ki guddeeg bëccëg suba ak ngoon rusoo ci dara ñàkk jom ku ma sëkk fii rek lañ ko mos a gis. d'accord kon da ngay bokk crainte bi nga xam ni aminateur Touré moom li mu fësal ci ay kàddu da ngay ànd ak moom ci loolu. mais dëgg la Aminata Touré li mu wax mais am na ñu bari ñu ko wax. au fond yi ñuy wax naa liste ba Saint-Louis binduñu ko ca mais yooyu ay naxasa kàndang la du dara léegi dafay mujj sax ku ñu valider ah ndax du ñu la soupçonné parce que ñii kat ku ne ñu la lay jéem a invalider loolu aussi foofu lañ jëm waaye nag du tere élection yi am xam nga nit da ngay piéger faf nga dugg si sa propre piège li ci neex mooy ñoom Macky Sall du bokk élection. gagné nañu loolu li ci neex mooy que mu désigné il est contesté dans son propre camp kon mënul jël e euh, euh, élection gagné kon système bi day arrêté lii moom day jeex par A ou par B. d'accord looloo ñuy réjouir voilà par A ou par B gis nañ itam yéen euh, seen parti ex parti PASTEF seen i député ñoo parrainel ki nga xam ni moom moo di Habib Sy moom mooy président ba tey conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi euh, kon mel na ni yéen yéen a ko jàppal tànk ndaxam li ni mel amul benn contestation ci li nga xam ni moom moo jëm ci seen kuréel gi. waaw mais mënul am contestation xam nga ñun nous sommes homogènes. xam nga mën naa ni man biram Khoudia Lo bu doon maay tànn du ma jël député yi di nga jox Habib Sy man mën naa wax en tant que Birame Khoudia loolu mun naa ko wax mais esprit bi c'est-à-dire ñun ñëpp dañu d'accord ci jël ko jox ko maanaam bu ñu wotee xool ñi jëpp moo tax li ci ëpp dañu jël jox ko xam nga lu tax élégance ñun dañu bëgg doxal élégance ki ñuy àndal dañ la bëgg sédd ba nga xam ne sédd nañ la démb maa ngi koy wax kenn amaana bu ngeen toogoon tey waaye ñu sédd leen lu ëpp treize députés waaye da ngeen yàkkam ci teel a trahir daw ñu ne ku ñu trahirul rek da xam ni la nga war a am di ko am looloo tax Habib si ma mu mujj d'accord ni ah war nañ ko mën a jox treize députés jeex na. y' a aucun problème loolu la. Mhm. amuñu contestation. léegi est-ce que confusion du am ci yéen euh, déjà ñenn ñi dañu jàpp ni Cheikh Tidiane Dièye c'est un proche collaborateur de Ousmane Sonko euh, Déthié Fall itam ki nga xam ni moo di Habib Sy tey militants yi ñoom ban yoon ngeen leen woon wala des na. xam nga bala yëf ya di euh, sotti. ñu passé le vingt. bu ñu passé le vingt. ñooñu ñëpp dinañu ranger seen bagage topp ci ginnaaw Ousmane Sonko parce que li ma gëm mooy. kenn mënu ko tere bokk ci élection yi. te dafay bokk loolu ngeen jàpp. mais day bokk ah <laughs> lu ko mën tere. plus de six mois la ñu wax yow nga ni six mois daal di cay langaamu toog article L30 daal di daw te visé wul diffamation nga dellu si waaye yëfu El Hadj Diouf yooyu nañ ñu ko tegal fee. d' accord waaw Birame Khoudia Lo yow yaay secrétaire général adjoint bu parti PASTEF ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni ñu la dalalee niki tey ci sunu euh, matinal bi. merci beaucoup mi di gërëm Mbagnick di gërëm képp ku nekk foofu ci rajo bi.